bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi dellu di leen sant di leen gërëm di leen dalalaat fii suñ beneen euh, morning show ñun nag ñu ngi ko tuddee yóbbalu bés bi jàpp leen ko nag turi olof lañ ko jox ñun yóbbali bés bi euh, yóbbali bés bi nag mbokk yi lan la ëmba ëmb na euh, xibaar ëmb na ay bataaxal ëmb na ay waxtaan ëmb na waxtaan yoo xamante ne ni def ñuy njëriñ waaye ëmb na it ay reetaan lu yoo xam ne rek bugg rek soo leen eewoo rek kenn ku ci nekk rek fa nga nekk rek xam nga boo amee lu la naxari rek nga génnee ko looloo ñu ko tax a def waaye di fàttali nag ne euh, euh, ñu ngi fii daal euh, maa suma ñaari malaaka yu ndaw yi comme ni ñu ko faral di defee rek waaye nag fàttewuñ nag di ñaanal ñi feebar ci lopitaan yi ak ñi feebar tey sox ak moom ak ñi feebar tey tëdd ci kër yi yal na leen yàlla may wér rawatina ci jamono ji ñu nekk nii nga xam ne mom dal dafa dafa dafa ndar kep ñenti goxe aduna gi ñu ngi ñaan yalla ñim dal yel na len yel nañ wër ñi nga xamne tamit dalut len yalla bu ñu dal way daw li yalla yërëm len ti jéggal len xaare len aljanna sama ñaari malaaka yu ndaw yi ñoom lay bay ñu nuyu wante ak yeen rek euh, muy euh, bébé Aïcha ak euh, ma bébé la wala ma anti la <laughs> anti ada <laughs> kon anti ada anti Aisha? naka nga fanane naka weekend bi sant yàlla asalaamaaleykum nuyu naa kep ki setan Sahel Network TV Euh, di leen jaajëfal bu baax. Ah, wala naan loo naan buuru di leen bëggee <laughs> naan loo naan buuru. nag. moo tax ngay gàtt yónnee wuñ ma kon nag ñoom ñu si mel ni ñoom Thiass nag maa la nag isto bi la. ñëwal mooy <laughs> loolu di aada yi ñu eh. caabi fi te gannaaw la fa yàlla génne ñu dellu si nii njaboot. amiin di nuyu asalaamaaleykum rek dal leen ak jàmm rek ñu waxtaan ci mbir bi. anti ada Faynala <laughs> Aïcha waa asalaamaaleykum mbokk yi yéen mi ñu faral di seetaan fii si Sahel Network TV. Mm-hmm. di len wax ne ñun ñoo dellu si waat si ay yeneen programme si ay yeneen anam. Mm-hmm. Wa ba tey manan onkul wali Wally plateforme baa ngi waaw comme euh, ni ko di rek mbokk yi euh, tey nag dañ am gan euh, gan gu tedd xam nga wax nañ len ne ñun ay ndaw lañ boo leen xoolee suñ xarkan yi nga suñ kawar xam ne ñun ay borom kawari yu ñuul lañ. <laughs> mooy lu ngeen a ree. am na ñuy bañ firi oncle bi de. moom si jaaxal te yu weex yi ñu ngi feeñ ci côté bi moom si jaaxal. kan la yu weexam yi di feeñ. ñooñu noonu ñooñu. ah ñooñu. waaw ok ñun ñëpp ay borom kawar yu ñuul lañ ñun ñëpp ay borom kawar yu ñuul lañ ay ndaw lañ moo ñun bu ñuy dalal dëgg la dinañ dalal ay mag dinañ dalal ay kilifa waaye ñi ñuy gën di waxtaanal mooy suñu moromi ndaw yi nga xam ne gis nañ ñu ngay yëngu ci boor yu bare bare bare bare fii ci biir réew mi te it nag olof Njaay dafay faral di wax ne nit ku nekk soo dëkkee si réew bu laajte lan la ma suma réew defal laajal sa bopp man lan laa defal suma réew parce que loolu moom mooy euh, doxee noonu loolu kay lu jar a fàttale ko la saa su ah, ne kay mhm. dañ ko war di bàyyi xel mhm. parce que xam ngeen da ngeen ah, ah, nii rek waaye man lu ma gën a neex man tey si bés si bés bi mm. tey mm. mooy plateau bi noom yaa njee ni macha waaw li nga wax na dëgg la moom euh, rafet na moom parce que euh, yii lañ daan defaree fanaal banti taara yii ngeen mhm. xam ngeen fanaal waaw kay parce que dama ko daan gis. <laughs> ñun moom Ada ñun ma dañuy dóor daal. saa si jamono lañ judd. dama lekk rek. man xam naa ko kay laltaara sax si lii lañ koy defal laltaara waaw kay luy laltaara. suma maam dafay tëdd. nu tudd. laltaara. <laughs> mbokk yi jërë di jëf ndey sax beneen yoon lalitaara mu ne lal mooy lal mooy dara bu ñoo lal waaye lalitaara. ok kon lali lalitaara waaw ak toogu taara yow si li nga toog nakal tudd la. toogu taara. <laughs> wala may réer a waat. taabu taara bii kon bii nakal tudd la. lépp table la. di de noppi noppi noppi de bii nakal tudd la. wéeru taara. <laughs> <laughs> mbokk ini sànn ya, ah, <laughs> mu ngi noonu yéen waay ndékki lay wax bu leen reeloo nit ñi ba duñ mën a añ déet waaye li ma jaaxal li kon mbokk ini ndeysaan ndaw li nga xam ne moom lañ ko Serigne Galas dama xamul nag ndax Serigne Fallou mu Serigne Touba lañ ko tuddé wala dafa am ben eh, galas buñ ko tuddé hmm. Galas Cissé ñu ngi lay dalal jamm di la wax bismillah ñu bay la nga nuyuwante ak askan bi asalaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi <clears throat> maa nuyu waa. Galas da nga bëgg a tii. non non. <laughs> non non su fekkee non bu dee da nga bëgg a tàngal baat ma yónni léegi ñu indil la tàngal baat bi tàngal baat bi. ñu ngeen nuyu waa askan bi yëpp kay am ñu ngi leen a nuyu oncle omar am omar wali mhm. am ñu ngeen nuyu aada ak mhm. ñëpp ñoo xam ne ni ñu ngeen nekk dañu seetaan tamit mhm. from far and wide di rafetlu rek tamit sahel entertainment tamit ak ñu gaay ñëwee tamit ubbi seen branch bi tamit biir banjul loolu tamit nekk na loo xam ne ni dañ koo rafetal rafetlu because of tamit capital city tamit xam nga tur dafa war a mun a uyu borom ba nga xam ne lépp loo xam ne ni lu baax la lu war a jëmale réew kanam war nañ ko mun a fekk tamit si capital bi moo tax am na yeneen façon bëri plateforme yo xamné ni dinañ ñu fay faral di osa mm-hmm. ñuy joxe ay ganta way ñaka dem mm-hmm. way lo xamné ni dal daal ñu yëngatu ba paré ñu sé gis suñu bopa mm-hmm. foog na né loolu tamit ku ñu ci mënti o tamit ak waxtu bu mëna don tamit dinañ mëna a ñëw ñu ngi rafetlu ñëpp eh, jërëjëf mbokk yi ndaw la di wuyoo ci turi Galas Cissé li ma ci jaax rek suma goro la mënu ma ko wax dara <laughs> ndax suma ñaareel bi Cissé la sante waaye xam naa ne daal maa ngi dee parce que every week ma ngi tek teg saakuma waaw loolu moom loolu moom a jaaxal <laughs> eh, waaye eh, Serigne Fallou Galas euh, buñ bëggé xam Serigne Fallou Galas moy kan ci tënk rek waaw ci tënk rek parce que xam nañ ne ndaw nga té ñak nga jot té ñun ku ñak jot buñ buñ buñ la téye tënk la parce que xam nañ né li ngay askan bi ci biti hmm. euh, njëriñ gi nga xam né mom la am kon buñ la tënkee ne dafa melni ñu ngi tardel lu bari té bëgguñ loolu Serigne Fallou wax ñu jaar jaari Fallou Cissé rek um, ok comme like si tenka bo len di dem tuura tamit bala ñoo dem tamit si kan mo nekk galas hmm. Yen platform bu ngeen nekk tamit di oote ni tamit plateforme yi jàngala ak jàngale mhm. so lépp loo xam ne nii tamit dañ ko fay tamit dañoo bugga tamit mu nekk loo xam ne dafaa njëriñ askan si loolu dëgg la tana loolu tamit si liggéey bu ñoo def tamit si la bokk si la bokk dëgg la tamit waaw mhm. loolu la waaye um, Serigne Fallou Galass ndaw la bu juddoo Banjul mhm. juddoo Tabakorot ok suma famille yëpp man kay na kase maa si juddoo Tabakorot. ok but suma yaay Adama Sarr ak Sira ñoom Hostrit la gaay juddoo number one. ok suma maam bu leen jur ñoom tamit Hostrit lam juddoo tamit number one. Mhm. ñoom ñëpp tamit am naa fa tamit ñoom 12 maam yoo xam ne ñoom fa juddoo Hostrit. Mhm. so man. man rek ma si jóge Tabacounda. waaye fii nga jàngee laa jàngee maa ngi jàngee um, from kindergarten one to grade six maa ko defee JC fa school. Mm-hmm. dem na Methodist Academy. Mm-hmm. grade seven to nine. Mm-hmm. ma delluwaat tamit Gambia High tamit science one tamit dafa grade ten to twelve. Hmm. nga am ay kayit yu baax naa ci ci wàllu jàng. waaw ok amoon na ay kayit yu baax tamit. si bi wàllu jàng dañ leen sànni. non ah, amoon na ay kayit yu baax tamit si wàllum jàng bi. Hmm. waaye tamit bu ma demee tamit ba jeexal jàng bi. Hmm. demoon naa tamit ba science laa doon def. ok ba bu ma demee tamit ba nekk tamit di grow older. I have been I have been fond of this social work. dama dem ba gis ne man dama dem ba dem ba xam ne man fii. loolu laa gën a mën a yëngu. Hmm. mais ba tax na sax daroon naa tamit yeneen school yoo xam ne nii tamit mënoon naa nekk ab medical doctor or a nurse. Hmm. but at the end of the day I didn't feel it there. Hmm. I feel ne comme like ne man in order to make a productive change foog ma dugg si biir social activities yi. boobu dinañ ci dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw euh, gannaaw bi nga jàngee school ba pare xanaa demaloo daara. ok man dem naa daara. Hmm. dem naa daara dem naa daara yaakaar naa tamit si daara bi sax. jeexal nga wala jeexalul la. jeexal naa ba ay gis nga euh, daara moo gën a tax sa ba benn ci nu ma koy mën a lekk léegi fu mu nekk. daara ji. daara bu weex tey xaw nga <laughs> boo tax ba benn cin fi mu nekk nii. kon ñaar yëpp doo ko lekk. mu ne daara maa tax benn cin dugg mën a lekk. <laughs> mënuma koo lekk. waaye jeexaloon nga daara ji. waaw jeexal nga alxuraan. waaw jeexaloon na alxuraan waaye xam nga alxuraan moom dafa nekk loo xam ne. soo ko bàyyee benn fan. soo ko bàyyee benn fan. mu bàyyi la ñaar loo ko bàyyi benn mu dawul la ah, waaye dañ dee faral tamit dañ dee faral tamit di durus tamit su fekkee time tamit permit sit. Mhm. mun a sànn mhm. because of comme engagement suñu nekka tamit. xam nga mhm. yëpp tamit at the end of the day mënuloo koo boolee nekka sëriñ daara ak. Ah, loolu loolu moom dégg jàng gu nga jàng wala jàng mun a mën a non non jànguma jàngit bu ma. waaw dama ne jàng naa mun a bind xam. lu ma lu ma lu ma lu ma gis moom luñ bind moom. di nga ko mën a jàng comme ni nga ko mën a jàngee ci anglais. waaw because su fekkee ne passé na la fi sax man bokk naa tamit si ay kuréeli xasida yoo xam ne nii kuréeli murit yi la fii. Mm. si Banjul because of uh, man kuréel bu ma bokk man maa foog naa maa fa njëkka nekk doomi Gambien boo xam ne ku juddoo Gambien la. Mm. kuréeli xasida bi am na ay journée xasida yoo xam ne dañ ko ko dee invite fii ba ay Gosaas ay mm. Ndakaaru. ay Daaru Xudoos everywhere hmm. I have been part of it ba pare tamit dama ko dee try tamit si suma schedule ak nu mu munti mel hmm. dama dee mun a jox tamit kuréel gi tamit ak tamit yoon bu ma ah. bokka tamit aham hmm. because of xam nga dafa bokka tamit si loo xam ne nii ma jegeñ dëgga dëgga dëgga dëgga dañ dee xam ne dee bi dama war a am pour dayam day so yooyu moom du dee nekk loo xam ne dama ko dee caaxaane. macha allah loolu am na solo gis nañ ni yaa ngi yëngu ci lu bari te gis nañ ne ndaw nga waaye tamit euh, bunte yi nga xam ne tey as ah, ndaw nga mun nga cee yëngu. Mm. lu tax nga tànn nekk activiste. ok lu tax ma tànn nekk activiste. waaw lu tax nga tànn ko. dama juddu. Mm-hmm. fekk ñun suñu situation. Mm-hmm. kóolut. Mm-hmm. ma def suma research. gis ne. suñu situation mosut a cool. because of yéen su fekkee ne yéen mun ngeen a fàttaliku yéen yéen a ñu fi xew a gën a jiitu. time boo xam ne nii toog ngeen di dégg ne diw sangam amoon na néeg boo xam ne nii nawet su jotaan du daan mun a tëdda. daf daan mun a daan mun a lifin ndox daf daan mun a dugal si biir néeg ma tey soo mm-hmm. soo waree toog tamit di same people di la wax ne jamono sangam neexoon na which means sa jamono musuta neex. loolu la mm-hmm. which sa jamono musuta neex because mm-hmm. of hardships yu nit ñi di dunda. dañ ko yàgg dunda. ok my family mm-hmm. most of them are well off mm-hmm. understand most of the things that I do mm-hmm. su fekkoon ne demoon naa tamit ma dem jël beneen trend man I am sure ne man I will be okay inshallah but it has never been about me it has always been about the people it has always been about the masses how to effect productive change how to make effect these change yoo xam ne nii képp koo xam ne nii yaa ngi juddoo si biir dëkk bi di fi eewoo foo toog sa wërsëg dina la fa mun a fekka mhm. si loo xam ne nii du mun a am xaaj ak seen mhm. ba tax na loo xam ne nii moo tax ma gën a mun a duga si biir social activism ba pare mhm. moom moo jël suma time yëpp suma life la ko mun a expérience nii bu ma waajee school ba tey because of nekkut yenn façon yi courses yi ak whatsoever because when it comes to being fluent in English language to university I do have everything about that loo xam ne nii fay bi dëgga moo hmm. dee gis ne yow loo dee def yaa ngi gis ne ok lii dafa mel ni comme benn garab boo xam ne ni yow yaa ko jëmbat hmm. yaa buggee meñña léegi-léegi nga toog rek gis ne benn branche génnee na fii hmm. léegi te dang dee dang dee toog ba xam ne yow lii luy dem yow am nga si loxo loolu rek nga dee bugga ba tax na ñoo xam ne ni duma si dee mën a mere kenn ku ma oo si dara ma dem soo ma oyut si dara sama dem ba foog ne man war naa see mun a bokka dama dee dem ba mel ni comme ku la dee ñaan loo xam ne nii mhm. pour man ma bugg a see bokka du mhm. dee mun a gàntul kenn tamit loo xam ne nii si loo xam ne dama ko gëm mhm. yaa loolu laa gën a nekk di loolu laa gën euh, maanaam léegi yow xalaat boobu noonu ak liggéey boobu tey euh, fay nga ci séntu yow dafa am office bu la cee fay wala nguur gi la cee fay wala yow da koo def rek ci sa coobare bopp ok like there are these type of questions yoo xam nii musuma koo wax in social media sax. Mm-hmm. because of majority of the people. Mm-hmm. do know that I am working. Mm-hmm. but some do not know where I work. ñeneen even if they know where I am working. xamuñ my working conditions and terms. dem na ba si suma family members my close close family members. this is my third academic year. that I have been teaching in Kampama school as a volunteer teacher. teacher meenam yi. waaw te kenn du loolu ñu gën a jegeñ suma famille sax dañ dee toog ba ñu ne ma ok weer bi dee na sa salari bi te yaa ngee fayeku. Mhm. doo ñëw indi ñu séeru. understand mhm. mhm. mu dem ba am ñoo xam ne nii sax dañ la daan xaw a lifin si dara sax waaye fu mu nekk foog nañ ne ok yaa ngi ew every day suba balaa eight o'clock yaa ngi leen a romb dem. so léegi you must start to be giving them something. but waaye kampama. waaye campement loolu noonu la ma nit ñi waroon a njëkk a laajte mhm. ok Jessie Faye school seen present principal bu fa nekk mhm. anti pewa mhm. she has been my teacher daf ma daan teach may am force si classe am su ma amaan seconde daf daan mer presently kooku seexoon nag su ma ay waajur ak ñu ma yar benn façon ngi teranga boo xam ne nii bu ma gisee ma ma war a nekk teacher the first thing that she could have she is doing. Mm-hmm. moo nekk ne pour ne su fekkee ne man lii moo nekk suma hobby. Mm-hmm. ma dem jësi fay. Mm-hmm. jàngale fa I will be having something like more than five figures mun na am more than ten thousand dollars every month. understand nga lu ma la expérience li. but it has never been about the money. why has it been Kampama. lu tax lu tax Kampama it's because Kampama waxuma la Gambia. waaye Kampama moom moo nekk school a am benn façon ngi négative tag buñ ko jox si biir dëkk bi. moom campement. boo xam ne nii so many people ñu ngi ko ko jox. nañ nañ ñu ko fi def wala ku fa dem. Mhm. you are a failure. Mhm. understand nga lu ma la expliqué nii ñu dem ba foog ne ok ba dem na sax ba ñu koo tàkkantele sa campement dof. Mhm. understand jaar naa fa primary school so so mu dem ba nga xam ne. da nga dem gis fa xale boo xam ne nii su demee marina sax mun na faa jël force but some of these kids. their parents do not know the essence of education. understand hmm. hmm. nga lu ma la explain. ba balaa ngaa mun a change system. Hmm. you must have to be on the ground. moo tax man most of the things that I say. yàlla rek moom moo perfect. man soo gisee lu tax ma dee mun a factual. with most of the things that I do say. I am a living testament of it. dama ko dee dunda damay nekk si biir ground bi di ko gis every day. jànkuwante bi jafe-jafe yooyu ba taana lu ma nekkee foofu noonu si biir school bi yëpp. Mhm. the most the best the most things that I do. Mhm. mooy nekkee ne maa ngi seet ëllëg a ngi sebet. Mhm. man naka ak nan laa mun a dimbalee xale yi nii. ba tax na am na ñoo xam ne nii sax suñu ma bàyyee dem si biir school bi nga xam ne ñii they are good students. I still have contact with them. I do have their parents' numbers. su ma demee ba bugg a organise lectures with them or mhm. classes with them I call their parents mhm. tel dem ne nangam sangam mhm. dama ko soxla pour time bii nii saturday ndax mun naa ñëw si campement school bi those are the people ñi nga xam ne nii seen papa yi ak seen yaay sorry to say some of them si benn saal si benn cabinet la ñoo nekk li ñoo dundee sa daf leen a cóog not to talk of di yóbbu seen doom yi pour ñuy am studies pour ñuy dem di dem study di nga gis koo xam ne nii sax di nga mën a ok yow ticca nga yow how about ma jox nangam ak sangam. Hmm. ay dama laa wax ne ok the kids from Kampama are coming to study or whatsoever. if you want to li nga xam ne nii since 18 19 ba 19 20 academic year bi. Mm-hmm. I have been working towards it ba pare mu ngi nekk loo xam ne nii uh, dem naa ba gis ñoo xam ne nii they are my friends and acquaintance ñoo xam ne nii. Mm-hmm. bés boo xam ne nii dem naa ba mun a register loo xam ne nii it will be in a sort of a foundation form. Mm-hmm. boo xam ne nii biir Banjul. I am sure ne. lum laadi laadi laadi laadi laadi when it comes to girls education. boys ak even technical education ba ñi nga xam ne nii. maa leen a spot si biir school bi ne ñii they are not good in academics. Mm-hmm. waaye ku leen mënoon a divert fu ñoo nekkee grade six wala seven. Mm-hmm. utal leen fonds pour ñu dem ay GTT ay wala stuff. Mm-hmm. fu ñii di graduate grade twelve dina fekk ñoom mun nañ. pour amal seen boppa ma mun a yóbbu seen famille. so loolu noonu yëpp maa ko nekk di ko bàyyi xel bu baax. ba pare tamit su sooner or rather than later. I will launch it. in some point in time. ñu ngi koy xaar waaw ah, loolu nekk na euh, euh, tontu boo xam ne tontu bu am solo la te it nag wax dëgg na yàlla kontaan nañ ci lool ndax nga nekk ndaw euh, am xalaat bu yànjee noonu am xalaat boo xam ne bari na mag ñoo xam ne tey ñu ngi eewoo fii ci biir dëkk bi seen xel sax àggu fa. Mm-hmm. ñoom liñ gis rek mooy ma liggéeyal la nga fay ma ma dem doxi suma soxla nga dem doxi su soxla waaye yow nga jël responsabilité bi def ko ci sa maanaam gàll ko ci sa loos te laajuloo ci dara ay ati at ba say mbokk sax ñu ngi yaakaar ne yow mi danga koy nekk ci sa poos bokkuloo ko ak ñoom euh, kon dañ koy jaajëfal bu baax a baax waaye anti Aïcha dinaa la laaj rek nga ñëw ak moom euh, su fekkee am nga loo ko laaj rek oh. waaw mu uh, Galastan la jaama ñun moom mm-hmm. dañ kontaan foofu suma maas yi maa ngi nii comme loo ni kenn explain it's very interesting mm-hmm. parce que suma maas yi xamuñ woon loolu sax si biir réew mi dafa dafa ma dafa ma jaaxal parce que mm-hmm. am na yow nga nekk ndaw nga am concept boobu noonu di xalaat façon yooyu noonu pour dimbale ñi nga xamante ne ñoo nekk campement uh, suma question bi ma la bëggoon a laaj moo nekk lan nga nekk di def apart from social activist te wax nga ko muy uh, campement fi nga nekk di jàngale li yow nan yan jànkuwante nga nekk di fees. Mhm. ak xale yi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu nga nekk di jàngal. ok xale yi comme ñoo dee nekk di fees most of it du dee du dee du dee nekk jànkuwante because of comme saay Mr Wali moom jaar na si yëfi daara. Mhm. am na yenn façon yi éducation yoo dee amee si daara daf la dee build in a certain sense ne. Mhm. lépp loo xam ne sa xool bi daf dee toj in a certain sense ne doo dee mën a gis yenn yu fii nit ñi dee ooyee jafe-jafe mm-hmm. yow doo ko dee tiim di ko xool as yenn yoo xam ne nii da nga ko dee jànkuwanteel as jafe-jafe mm-hmm. <laughs> so most of these kids ok soo leen di teach mm-hmm. it will be in a strict learning environment bi nga xam ne nii ok dinaa la lifin because ñun si Christian school si lañ dem Anglican si so what we've been doing there your nga lay jël su ko defee they will even have a snippet of what it means to be in some of these private schools mm. because mm. your code of dressing, how you talk, how how you, how, how you maintain an English speaking medium in classroom, mm. understand? Mm. It all helps. parce que mënuloo ñëw si biir classroom boo xam ne ina conventional educational setup boo xam ne nii da nga bëgg oh, a sa mandinga o sa wolof vocabulaire bi pour mu yokku ya hmm. bugga nga pour soo génnee soo waxee nit ñi mën a xam ne kii nii dem school bu mu demoon sa at least njëriñ hmm. la hmm. because of nekkut ne dañ bañ suñ culture or suñ tradition de don't get me wrong olof ak soose banjul la em ak sénégal ñoom ñu si bari lord mayor Kampa Maram Jaar. Mm-hmm. député meo Kampa malam jar mm-hmm. buñ fa doon jar ndax xamoon nañ ne dinañ nekk meo su nekk yaa ngay dem New York yaa ngay dem fu nekk. Mm-hmm. bëgguma nga toog benn de ñu ne ah ok saya mu ñëw rek ne ma hee suma ticca baa ngi nii langaamuma keneen dafa toog bànjul dafa bari ñu sew ne xay yow ndekete yow ko dem english or whatsoever so i will be embarrassed about it so these things eight by half past three we are in a strict classroom medium but so fekkee after loolu ñi dañ ma ñëw mayalu ñi dañoo jël dosta bi ñëw pundal suma kanam bi I do not mind understand loolu ma la explainal li because dafa am leneen loo xam ne mooy ñu boole there are certain times moom I have to be hard I have to be rigid mm-hmm. even though ñoom seen bopp at the end of the day dañ dee mën a understand man pii mun naa génn a play of football I do not mind mm-hmm. but di nga am ñoo xam ne nii comme administration sa soo ko def luñ la dee njëkk a jàngal si biir administration. moo dee nekk man management. because ñoo dee amee yëpp duñ dee jógee from the same compounds. Mm-hmm. am na ñeneen ñoo xam ne nii dañ leen a yar ay si yar lu waan lañ nekk dañ leen a baleloo fóot loo leen ñëw school half past nine su ñëwee nga gis leen they just dozing off di nelaw. Mm-hmm. understand nga ya? ñu mhm. noonu soo leen eh, aidé ka noonu bi productif bàyyi leen ñu nelaw xëj na after break tax moom noonu la gars di mën a récupérer understand nga ya? so foog nga foog nga mën a you must have to be ghetto foog mhm. nga mën a jaar si yenn façon yi setup yi ñu mën laa tàggat si yenn yi ba nga dem ba mën understand yii nii yëpp pour nga mën koo balance because yenn saa suñ la ñëwee booleel la ñaari classe you have things like seventy eight kids foofu noonu ñoo war a jël seen books yi yëpp maak leen some of them you even have to tell you that ok jëlal books yi ni nga yóbbu ko suma biir kër man suma toog fu di waxtaan guri hmm. mun naa dem di la maagal seen books yi ok ñoo xam ne nii am naa si objection mun naa koo tegee nii yële ma tegee ko nele ñaar yu spayante sa su fekkee teg na sa book bi si kaw keneen ki teg si bookam bi si kaw kaw mun naa understand yëpp because of mm. these are things that we have been through. Understand? Mm. So it's more of a passion than jafe-jafe Boy Junk because of you are doing these things out of your heart understand nga because you are doing it for your fellow countrymen bugguma comme rek ne ok am na ñeneen ñoo ah xale yi toog di kaas rek mhm. toog si facebook bi rek mhm. di jaay nit ñu wax ñu bari rek understand nga what are you doing bugguma loolu what what i want moom moo nekka pour at least ma gis ne am na gambien yoo xam ne nii bokk nañ ci biir setup bi ñoo xam ne man lu wax change change change ndax man mënuma leen a indoctrinate in that change change change su fekkee ne at least classe yi sixteen nit la sax there will be another ten galas yoo xam ne nii dinañ bokk si transition boobu noonu ñuy wax change change change but man gëmuma lu ma dee def nii yëpp binda ak lii lifi nii mm-hmm. it's just a hobby or something but man lu ma gën a gëm moom moo nekk a jëf naa dee jëf man loolu laa gën a loolu mm-hmm. macha mm-hmm. dañ dee gis ne galas daf dee binda waaye galas li ngay wax fii yëpp comme dafa mel ni loolu si yow la nekk gis loolu ni nga waxee sax ñëpp xam ne ne kon <laughs> tali <laughs> comme ndongo daara nga ba pare euh, leneen lu ma bëgg a la ca mooy euh, yow comme nit su la gisee na xam ne comme li nga nekk di dula loolu nga nekk di wane ba pare yow euh, dress code bi comme ni nga dee solo comme da nga dee solo pour nit ñi. Eh, luñ bëgga wala yow sa buga bëgga motax nga def solo comme sa njaxas yeeg sa abaya comme ni nga def ni tay ya, ok when it comes to suma solo bi mom mhm. ku nekk def ci dem mën ka kaasantu way ñu ka kaasantu yep at the end of the day dañ day ñëw rek a ah, day see that this is a norm that is part of him mhm. ka ñu continuer rek dem ci ak mom because du dee du dee nekk lo xam ni gis nga gis nga when you go to a Nigerian society mm -hmm. Nigerian bi nu mu sanse sanse sanse ak lu mu am am am xaalis. Mhm. di nga gis ne dina sol seen caxayu réer. caxayu waaw waaw. gis ne ñu ngi sol mbaxana chieftaincy bi. Mhm. ak seen young boys yi sax. waaw. understand so whatever ak nu sanse bi classic di nga gis ne there is something in them. that is portraying being a Nigerian. Mhm. wax ne ñun suñu boppa naka lañ mun a demee. fos dañu wara start pour décoloniser suñ mayin bi xam ñun ñoy li ñun dañ wara gum sa bopa ku la gis sax war na san, ki fi lam bokka nasan i do not mind ok su fekkee ne dama dem programme STI I wi adi san go mm -hmm. su fekkee ne dama dem state house pour séti borom musuma koo séti sax wat ay kan wi adi stingan go mm -hmm. a it's it's it's just to portray who I am nga xam ne nii tamit loolu noonu it can be a topic for another day but lu ma nekka di gën potri portray moo nekka ne ñun su fekkee ne war nañoo mun a dem waruñoo am complexité ñun suñ jëmi boppa su fekkoon ne dëkka ba nga doon dox dëkka dëkka yenn façon yi nit jiite ko mm-hmm. ba you are are start di produce cotton mm-hmm. am Gambien boo xam ne nii ok su fekkee ne Mr Bathily fu mu nekka moom moo nekka léegi am cotton factory bi mm-hmm. ñu war koo mun a dimbale government bi waroon na dugal something like ne ok Friday wees yu def yëpp na nekk ak cotton boo xam ne dafaa jógee ko from that thing mm-hmm. Gambia mm-hmm. understand mm-hmm. soo léegi loolu at the end of the day it will be a norm di nga gis Gambians yoo xam ne sax they will be outside yoo xam ne they will see ne lii moom maa fiir loo Gambian xaaral man tamit ma order from news about it because of gis nga Sénégalais bi sax soo ko gisee ak foo ko mun a gis gis gis even if you go outside mm. xam nañ am na meew yu daxa vitale xam dañ ne am na ay spices yu daa ñoom Jumbo ak Madji but mhm. they still use them understand mhm. nga mhm. Sénégal ba biir Italie Vitale la moo naan dañ dee dañ dee différent de but dañ dee xam ne lii moom moo jógee koo ñun suñu dëkka so ñun we have to be productive war a am loo xam ne nii dañ war a am ne lii mooy ñun suñ identity waaye soo gisee man ok most of the people dañ maa gis ah kon kon dégg nga English wala dégg nga ma leen ne come su fekkee ne ñun suñ suñ médium fii nii ok intelligence it cannot be measured mm-hmm. based on the fluency or, or, or, being fluent in English language mm-hmm. so that so that loolu noonu i think ne it sums up man mm-hmm. suma solo yow whatsoever dégg la li nga wax noonu maanaam pour gëm sa bopp ak nit ku nekk bugg li nga xam ne daanaka moom la sa réew di di defar dinañ fàttaliwaale ñi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaaloo ñu diñu seetaan ne yii ngeen gis nii tamit yi local product la yii fii lañ ko defaree ya? waaw yii fii lañ ko defaree eh, lii tiil la boo xam ne pour jigéen la te mhm. liñ ko defaree mooy eh, seppa lañ ko defaree mhm. mhm. am nañ fi mbor mbor suñu mbor mbor bi nga naan defar nañ ko tii am nga am na fi kinkiliba tamit tii yëpp gambie fii lañ ko defaree comme pour pour dëggal li nga wax rek ne tey jii ñun balaa ñoo topp yeneen xeeti tii tubaab yi war war nañoo mën a ci waat moo tax yaxare jaar nañ waaw gis nga moo tax it xam nga ñun ñu display ko fi te gis nga ko dafa mel ni dañ xam ne xëy na ku mel ni yow da nga ñëw wax ba dugg ci lu mel noonu kon loolu dafa am solo ada aɗa mba baylak activiste bi mm-hmm. wa kay eh, galas ba tey man su ma laajte mooy fu mu nekk ni Gambia ñu ngi nekk ci lu metti du ma ne Gambia rek way outside Gambia fu mu ñu ngi am febar bo xamni manam lembe na rew ni ñëpp diko ko mu doon lu metti ci ñëpp so ma bëggoon la laajte yeen Gambia fi government bi jégo yu jël pour dimbali askan bi est ce que jégo yu ñu doon na lo xamne lu doy la wala ba tey dañ wara yok sen loxo ok I think ne um, rafetlu naa laajte boobu tarap mm -hmm. but I think ne ñun suñ contingency plan as a country it has woefully failed because soo xoolee our biggest sanatorium foo xam ne nii war nañ fa mun a assess teg fa nit ñoo xam ne nii dañ war a am feebar boo xam ne waruñoo laalante mm-hmm. muy wenco bi nekk meltu mm-hmm. it has less than two hundred and fifty beds mm-hmm. soo amee five cases ak ñoo war a quarantine five rek wencoo fees na on a sangal ma mm-hmm. so nga dem ba xool ne misplaced priorities dafa nekk si lii from day one doo mun a wax ne dañ ko politics but yi nga gis ok man I have been teaching fine but presently the competition is no longer for success or education but the competition is for survival. fu mu nekk ngir 2020 ñëpp dañu doon wax ne at bi dama war a successful dama war a at bi su fekkee ne dañ ku nite nga xam ne at bi lu ñoo compete mooy ne survival dama war a survive yàlla naa mucca si lii. Mm-hmm. nga ñëw am 35 million dollars from the ministry of education. mu ñëw di dugga ñu ne dañoo toog di jàngal xale yi nonsense si télé bi ak si rajo bi. Mm-hmm. si bagage yoo xam ne nii sax bu mu ñëwee si biir dëkk bi yàggoon na si e-learning activité si si lañ ko waroon a def. Mm-hmm. they were not prepared for this nga am government fu mu nekk xale yaa ngee toog di génn si biti. understand loolu ma la expliqué nañu. Mm-hmm. di nga gis yeneen dëkk yi ne ñu ngee def lockdown yi lii lockdown yi laa docteur yi ne di ñun suñu dëkkuwaay su fekkee ne mayut ñu ko these kids are not on a holiday for God's sake. Mm-hmm. dañ wara tok ci bir kër yi. Mhm. because tamit wax ju du né tamit way tamit su fekkee né tamit dem nga tamit ba lo amé ay doom. ko mhm. len di juré in the first place. Mhm. yaay téyewuñ seen xale yi si kër bi. we are having porous borders in this country. with all due respect. Gambia first. Senegal is having nearly 300 cases. we are still having porous borders in this mm-hmm. country. Mm-hmm. why not army bi suñ leen tegee si kam bi dañoo lekk. Mm-hmm. suñ leen tegee si border bi dañoo lekk. lu tax jël leen def leen si ay tents yoo xam ne nii ok dañoo dem patrouille suñ borders yi. tey tey tey su ma neexoon tey dugga fii nii dem Sénégal. jël fa selfie ëllëg ma ñëw indiwaat la ko fii ma ñëw duggaat si biir. dëkk bi fii ci lu wér te xam nañ bunte yi sax. so loolu noonu. ñu ngeen caaxaanee loo xam ne su fekkee ne am nga dëkk boo xam ne you have a fragile health facility nga xam ne yow mënuloo faju fagarul mm-hmm. lii mm-hmm. ñu ngi ko nekka di ko caaxaanee waaye ñu bari xamul ñun lan lañu nekka di caaxaanee li nga wax dëgg bu wér la Italie southern Italie Sicile am na fa benn health facility boo xam ne it is one of the best in the world mm-hmm. fa la death toll bi gën a bare lu ñu daan wax nañu feebar bi mënut a dal dëkk yoo xam ne dañ daan tàngam bu dem Iran cripple fa. ba fu mu nekk seen prisons yi dañ have to let everyone out. prison ayut si nit ku ñuul wala lii mu dem New York lu mu fa rey si nit ku ñuul. ak latino fu mu nekk amul. Mhm. soo léegi nga gis ne most of these things are being politicized. Mhm. nga gis ne fu mu nekk ku nekk mu ngi ko bugg a utee a way of having money. understand mooy dëgg 500 million dollars is everybody ngay coow ah, soo si jëndee ten respiratory machines ñaata mooy des si 500 million dollars is mm. toog ku nekk naan la ne ay nañ ma si seeda 250 gis nga am na yenn yoo xam ne dëkka doole du ko dee dëkk doxal dëkka xam-xam moo ko dee doxal mm-hmm. xam-xam rek ba pare gis nga Gambia mm-hmm. nanguwuñ dëgga nangu ñoo jiital ku am xam-xam. Mhm. ba pare ñu ni nen duñ dee nangoo waxante dëgg suñ biir. ci lu wér bés on ne aada suma xarit la oo suma lii. Mhm. gis nga nit soo di àndaa moom day àndaa moom si dëgg fu dëgg em ànda bi em fa. understand nga lu ma la nekk la mhm. expérience li. waxtaan nag gis nga ñun fi mu nekk nii. lii Gambia moom moo dundee dëkk dunda boo xam ne nii. still now people are in defiant ne lii amut. Ah, fekk dégguñ ne John Dennis yóbbu nañ ko si bàmmeeli ako bi. ba léegi ba léegi Ousmane Dennis yóbbu nañ ko si bàmmeeli sëriñ bi. Galas ak Modou Lamine yóbbu nañ leen vencoo. dëgg la di time bu gaay di door di jël seen précaution. Ah, expliqué nañ leen feebar bi ne leen leen incubation stage bi mun na am 14 euh, days span. Mm-hmm. boo xam ne nii da nga koo am di waale yaa ngi strong taxaw. Mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi duñ nangoo mën a ñëw toog seen kër yi ku nekkaa ngi difayeen ku nekkaa ngee def li ku nekkaa ngee def li waa galas oh. euh, ñu ngi la gis euh, si distribution foods ak yeneen items to the needis mhm. euh, ban phone nga am pour def li ok comme nit ñi nga xam ne they have been reaching out on us mm -hmm. being advocates mhm. ñun mm -hmm. we are duty bound to be doing these things mhm. amut kenn koo xam ne ni sa parent nangu na pour yow ngay génn ak health hazard yi ngay génn di dem naan da ngaa dem distribute wala di dem sa naan da ngaa génn Banjul di dem ba ay kombo ay yu kenn xamut. Mm-hmm. kenn pérentam nanguwut ko. Mm-hmm. ak the end of the day su ñu ne da nga dëgër ba pare what they have what they could do for you mooy ñu ñaanal. ñaanal understand mm-hmm. but these things bu bu Banjul Covid 19 sensitization campaign bi. I am thanking the PRO of BCCL ba moom moom ma njëkk a joxe the platform. pour ànd ak moom ñu sensitize Tabakuroor and stuff buñ paree foofu noonu mu joxaat ma plateforme pour lead caravane boo xam ne nii dañoo dem pour distribute forty eight out of hundred buckets in hmm. bànjul yoo xam ne nii si ay hotspots lañ ko war a def. buñ ko demee tamit ba def loolu. Hmm. demoon naa tamit ba defaat follow up jël suma seekul di wër Banjul paan yi yëpp ma dem fa di raxasu. Hmm. but most of it bu ma demee dama gis ne paan ordre samay li nekka tut fa omo oh, bi nekka tut fa iya, ma dem ba xam ne déedéet ne ñom seen boppa nit ñi dañ ci taraan Amu ñu ñoo dundé bala ñu bala nga refill ordre sawel nga refill sa bir bi ah, ah. on a sangal mala expérience <laughs> dañ tek nonu pan yi ndoxi kess no dam daf am sa way daf limited so I had to talk with this sister of mine ko xamne ni Aminata jagne maa ko nuyu mhm. America la neka mhm. I explained it to her ne ko ne okay nit ñi nga joxe lekkaa nan but paan yi fu mu nekk buñ nangu mu nekk fi ay ghost paan mm-hmm. nañ ko jël ñu ko équipe understand mm-hmm. bu yónnee ma xaalis ma dem pictin jënd ay carton yi ordre savet bu bu nekk wala place bu ma dem rek gis fa ne fii am na siyoo raxasookaay mm-hmm. ma bàyyi fa ordre savet ak ay omo ne leen ne nañ leen dikki pop ak lii fii ba leneen fu mu ñëwee mun a fekkee but guess what dangaa dem fekka nit koo xam ne nga jox ko ko laa gis yaa ngi joxe feneen saako maalo mu fiil ne yow da ko yeb. di ko saf moom naka ngaa ñëw di ko joxe nii joxuloo ko saako maalo balaa maa ñëw suma kër dafa fa daf daf daf ko ñëw delloo foofu. Mm-hmm. delloo ko. which means ne daf ko géeda understand mm-hmm. ba these are things yoo xam ne nii dama koo fees foofu. Mm-hmm. ma dem ànd ak tamit beneen initiative boo xam ne nii suma broda maa ngi ko nuyu Assis Dabakh ñoom Essa Fall. ñoom Yacine Diallo. ñoom docteur Habib Hatib Tall. Fils Diouf ñoom Memba. ñoom Siri Modou mm-hmm. Moussa mm-hmm. boo xam ne ni it has been so far mm-hmm. the greatest humanitarian aid boo xam ne ni it has been organized by the private sector of the Gambia Gambia National Fund boo xam ne ni barki démba rek in two hours wala three hours raise nañ over seven hundred thousand dollars si xaalis si dëkk bi boo xam ne we have been supplying food items yi nga xamne ñu ngi démé ci dundu yu nga xam ne nii maalo soble lijom tamaate kër bu nekk suñ fa démé fekka la fa saf wante yow wax la lan moy indi feebar bi ne la sa kër ba paré jox la loolu solo waaw ñu ko def ba paré tamit ñu ci si ak ak nit ñi mhm. nit ñi tamit du ñepp ñoo mëna am ci bobu mhm. we are not cancel ba mhm. paré li mosla la gambie yëpp ñoo ngi war mos laal nañ Banjul laal nañ Tandinding Farakono laal nañ Brikama. Mhm. Brikama rek am na 24 kabilos. Mhm. kabilo bu nekk am na ni Banjul. Ah, so foofu noonu ten kabilo rek nga war a laal yeneen foti yi da bàyyi. Mhm. so da ngaa wax gis am na ñoo xam ne nii dama lifin sa enu ñaari saako ma la di dem nga nekk keneen kii di ma xool ko fu mu nekk nii. ñii ñoo dee kalma si Essa Faal ñoom ñoo tax mënu ñoo jox lu ñoo iñaan ak seen xaftaan yi <laughs> su fa jigéen woon instant mënul naa jox defar I even have videos on my phone that I will share with you mm-hmm. but for um, viewer discretion bugguma mm-hmm. kanam yi ñooñu noonu génn but di nga dem ba gis ne kër sàngam bu mm-hmm. demee place boobu noonu dëkka boobu ñooñu noonu dañu rey dicks full family dix bu ñu rey amul ni ko toogee ñu ngi ko teg si buntam. allahu akbar. maa ngi understand. dix bu ñu rey ñu ko teg si buntam amul ni ko toogee. bu ñu ñëwee foofu noonu noo gisee maire bi di waxee rek daf laa leer ne man lii su fekkoon ne sa suma bakkan daf doon des si yoon bi sa lii da koo ko continuer di ko def. because of ñaata lives nga nekk di safe present li xamuloo ko. ba pare it is exposing how poor our people are. gis nga lii at first man lu ma lu maa def man su ma jëmee ak man lu ma def mm-hmm. tey laa fi soog a wax ne ticca la after three years mm-hmm. man am na yeneen yoo xam ne activités yoo xam ne maa ngi koy def du ma du ma du ma ko wax mm-hmm. understand because that is me but kuy dugal xaalisam si dara dee ko woon pour xaalisam dee dugal soo gisee lu tax ñuy choose those deplorable homes because kuy joxe xaalisam at least mu gis ne man fu ma dugal suma xaalis ñi sona nañ waaye ku sona su fekkee ne mu <laughs> ku yónnee xaalisam su gisee vidéos yooyu du mun a understand. déedéet ko safaani man maa ngi yónnee suma 50 dollars man aw ma taasa ji di yóbbu lii nii dimbal bi suñu ko dee gis pour mbir gën a yërëmtalu liggéey bi liggéey bi gën a mun a xemem si ñoo xam ne nii ñoo nekk di yónnee seen xaalis yi mm-hmm. mu am keneen koo xam ne nii biir Banjul fii dama dem ànd ak Essa fekkal liste bi fu ñu dem rek ñun dañ dee def division of labour man buñ passé Banjul man mënaatuma identifier dara hmm. si kër man saaku maalo laa am enu hmm. suñ paree ñu ne ma demal teg ko fii ñu dem benn boor boo xam ne nii biir Banjul fii buñ demee kooku break ma break Essa mu ne foo di dem Essa mu ne ko ni fële lañ binda liste bi kële la ñoo yóbbul saaku maalo bi kooku mu ne ko le ne ko da ngeen koo teg fii ñu tas ko séedoo ko bu fekkee ne ku nekk da ngaa am ñaari pot sax da ngaa am ñaari pot waaye iya, maalo bi du fi romba ay sa gestu ma xool ma ma ne ko lu ma wax nii xam-xam la de maalo bi du romba mu ne ma den bring another bag ñu indi ko jox ko kansula bi tunkoo ak yeneen bags iya, tunkoo si saa si daaji ko ne leen ne ku nekk indi leen bool understand so dafa am ñoo xam ne comme yeneen xale suñu déggee m diggante Banjul ba Serekunda Birikama mhm. they do not understand certain things understand ne there are people yoo xam ne dañ dee toog a week ci du dee taal seen biir kër yi. dafa am ñoo xam ne nii mus nañu dañ dee toog si dëkk bi mosu ñoo reeree ndox. it happens. nit a koo def si biir dëkk bi. so gis nga yooyu noonu that undocumented Gambia. yéen investigative journalism da ngeen ko war di gën a def. incha allah there are certain stories yoo xam ne yéen being an independent media house. Mm-hmm. bugga naa ngeen gën koo def. starting bi dafa hard. criticism bi it will be there. but dama bugg pour yéen ngeen dem génne yeneen façon ni stories yi ne lii mu ngi xew si biir bari na fee eewoo ñoo xam ne xamuñ ne yéen mu ngi fee xew. waaw loolu dëgg la. Babir Banjul bii nii yaa ngi gis ne ok just Banjul la rek Banjul nii duñ lii. Mhm. ok Kanifing la rek Kanifing nii duñ lii. our means of production, it is not being controlled by the Gambian patriots. Mhm. That is the hard fact. I do have my reservations when it comes to Futa Enterprise because it is an entity that has been here in Gambia for the past two to three years. ñu dama ñeneen importation yépp seen loxo ñoom kenn ñu fi indi maalo bi si bi dëkk bi buñ demee ba pare ñu ñëw jël one million dollars jox ko government ni Gambia jël hundred thousand jox ko BCC jëlaat beneen hundred thousand jox ko KMC it is not done su fekkoon ne patriote si dëkk bi ñoom ñoo nekk di jël means of production amee ko. Mr mhm. Wally mi su fekkoon ne moom ñaari jabaram yëpp nekk Gambien wala Mr Badjili mu am jabar nekk Gambien famille bi yëpp nekk Gambien. mu xam ne nii nii hit na Gambia bi ba pare moom moo nekkoon di indi maalo ak pompiteer fii. Mhm. the best thing that he could have done moo nekk ne dafa au government toogaa ñoom on a round table ne leen ne kaay leen ñu discourse. Mhm. maa fi dee indi maalo bi. tax boo leen ma doon teg di ma ko levi génnee leen ko suma kaw. ma indi maalo bi di ko jaayee at imported rate mm-hmm. waaw yow one million boo xam ne yaa ngi ko jox government bi su paree daf koo ñëwaat jëndawaat maalo si yow it is a it is a it is a money making venture here loolu dëgg la xam nga am na yeneen yoo xam ne nii suñu fa tool Gambia is the only country here mm-hmm. si biir àdduna bi mm-hmm. foo xam ne nii lu moo dundee si ay loxo nit ñoo xam ne nii nekkuñu waa dëkk bi la moo amee so this COVID-19 it should be an eye na not just foo the government but the opposition because the opposition is the government in waiting. Mm-hmm. am na yenn yoo xam ne soo ko duggee def ko. Mm-hmm. soo gisee lu tax ñoom Kagame mun a dem. Mm-hmm. Rwanda after 94 la start génocide dañ reyante ba seen mbedd yëf fees. dëgg la waaye gis nga am na yenn yoo xam ne nii suñ fa demee ba egga. keroog rek man doom joxe exemple. di wax Alaaji Suley Sarr fekkee wuñ ko but good deeds are here. amoon na PCI. Penda Thioro investment boo xam ne nii boosi sam yi dañ bari woon si biir dëkk bi. néew ji doole yi dañ si daan dugg ñii as loo as talaa da daan dem ñu laa yóbbu. ba fa la ma ku mel ni su fekkee ne ah, nekk def daan faral su fekkee ne ñooñu noonu. because ñooñu noonu waa Banjul lañ. waa Gambia lañ ba pare seen xaalis yi fii lañ ko méngee. it was not about profit. Mm-hmm. but how to help the Gambians ah, here but nga dem ba léegi fu mu nekk gis nga daat yooyu noonu buñ fi nekkee borom doole lañ woon ñoo xam ne nii dañ daan dimbali mm-hmm. moo tax time boobu noonu dem out bi sax bariwut waaye nit ñi fi nekkoon mm-hmm. ñu ngi daan dunda ba pare ñu ngi daan dunda si teera di sutura but su fekkee ne continuer nañ nañ nii mm-hmm. empower wuñ Gambians yi moo tax man séminaire dematuma fa workshop dematuma fa because ay naxaate kase la ay kabudu ay clique kase ñoo faa dem toog ñu jox la breakfast baobab jox la añ baobab. Mhm. ngeen toog fa workshop about farmers man kañ laa am tool. Mhm. <laughs> what do I know about farming dañ faa dem jël ñëpp ñu jël leen fa yóbbu leen fa. jox leen a transport allowance of five hundred thousand dollars every day. Mhm. soo leen paree ngeen ñëw ñëpp si. they are not even engaged in the workshop about this and that. noonu la nekka di demee. gis nga dëkk bi fii. dañ dee naxante ñu ni neen suñu boppa gis nga. force dañ war a nangu ne dëkk bi doxut. Mhm. seconde ñu nangu ne ñu ni neen dañ war di waxante dëgg. ci lu wér su fekkee ne defuñ ko. ci lu ñu dem ci lu wér. Mhm. Euh, jërëjëf euh, Cissé Ngari Njarmeew euh, mbokk yi soo gisee ñu bàyyi ko mu génnee kàddu yi parce que dañu xam ne kàddu dëgg dëgg rek la mën a doon. te wax dëgg ne yàlla bu ñu fàttali ko rek xadis bi dafa wax ne. qulul xaq. walaw kaana wala walaw kaana ala nafsika ñaar yëpp ñëw na kon ñu bàyyi ko xel bu baax a moo tax ñu bàyyi ko mu génnee li nga xam ne loolu moom moo nekk ci dënnam mm. te ndaw la te ñun ndaw ñi ñun ñooy ñun ñooy dooni kilifa réew mi ëllëg te dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg buñ amutee ndaw ñu dëgër ñu mel nii ñu mm. taxaw ñu mel nii ñoo xam ne seen i bët na seen xam-xam na ñu ngi gis ëllëg te mm. ëllëg ñëwagul parce que xam nañ ne ñoom ñoo war sol daal di mag ñi ëllëg buñ leen bàyyiwul ñu génnee li nga xam ne moo nekk ci ñoom kon réew mi du dem kon dañ lay jëfal bu baax a baax xam moo ni ko sant Cissé amee na nii màcce na nii. man daal dama foogoon ne si lekk bi rek la ñuy féetoo waaw loolu laa foogoon dama foogoon ne waaw dama foogoon ne dama foogoon ne ku ku sant Cissé xereñeewul nii waaye ndekkee woo oh, oh, macha allah. kon ah. dañ koy sant di ko gërëm mbokk yi dañuy wax ne euh, gis ngeen ko ndaw la laaju bi kenn lim soxla lim soxla mooy yéen ñi nekk bitim réew te ba léegi yéen a ngi am bunt yoo xam ne mun ngeen a yónnee si seen alal jox ko jox ko ko. mu jënd ko dund delloo waat ko ci askan bi damay wax ne bala mu jóg fii dinaa ko laaj nambaam bu fekkee na Facebook ko wax bu fekkee ne am na email dina ko wax nga xamante ne di ngeen fa jaar yónnee ko li ngeen am su li ne ay ay bagage la ko jënda te te ci te ne ne yow sa alal ba nga may jox man soxla ma ci dërëm li ma bëgg a mooy li nga ma sant li nga ma sant lii laa lay defal te ñun ñëpp loolu lañ seede ci moom wax dëgg yàlla kon mbokk yi damay wax ne ndaw yu mel nii lañ soxla ñu ñaanal leen yàlla suñ doole ekati suñ poos mhm. jox leen yan ma ngay man, I do have a Facebook account. Mm Facebook account is Galas Cisse Junior. Galas Cisse Junior. Cisse, we C S A Y. Okay. Then you can screen I do have a. I do have a. Telefon. Coronavirus. Man, ah, man, kau bukan lain. Dah social media. <laughs> Galas yo. Mm. Ah, te moom fan yii mu ngi wër. mu ngi wër rek de mu la woon may ne nii ah. soo léegi am naa téléphone number boo xam ne nii. suñu ma fa koolee nañ ma fa mun a am. ok that is 252. 9287. Mm-hmm, mm-hmm, dellu ci waat. 252. 9287. Mm-hmm. ok ba um, am na an email adresse mhm. faalu siise mhm. at gmail dot com mhm. ok ñu ngi sant tamit ñëpp ñoo xam ne nii jaarale nañ tamit seen xaalis suma loxo ku si mel ni the um, renowned Gambian all time striker Assane Torres Cissé moom tamit yónnee woon na xaalis yoo xam ne ni daf ko jël joxe ko joxut ma liste joxut ma turi kenn jox ma ko because tamit olu olu na ma tamit gis mm-hmm. na man tamit may dox ci moo amna ay brothers ñu mbokal ndeya bay amna ay sisters xam nga lu kóolute tamit nit su la ko ba def la am so solo di tank tamit de MZ Lamin family Momadou Momadou Lamin family the former the former um, commander of police mom tamit domam mm-hmm. domam yi mm-hmm. du ko dooree si ñoom Awa Lamin ak ay sisters am Aminata lamine Abi Lamin Nguy Arona Lamine ak ñoom ñëpp. Mm-hmm. ñoom tamit dajale nañ seen seen doole. Mm-hmm. joonee ma ko pour ma jënda ay saaku maalo. Mm-hmm. fàtte tudd ajay. jëlee ay saaku maalo yoo xam ne nii maa ngi ko war a distribute. fu mu nekk because of um, daat bi bu mu gaañoo week bii nii la am seven years. so léegi ñoom tamit um, to because dañ ko dee wàccal caméra ak yëpp. so at bii tamit nga xam ne mbiri social distancing bi ak yooyu noonu they have diverted those funds towards me. su ko defee tamit mu mun a. tasaare loolu noonu. si mhm. ay families yoo xam ne nii from Banjul North. Mhm. Central and South. so loolu noonu tamit ma ma ma ma ngi ko rafetlu trop tamit bu jógee ko si family bi. am na ñeneen ñoo xam ne nii tamit they have been coming up with certain donations. ak mhm. tamit ñu nekk tamit di donate tamit through the GNF the Gambia National Fund. mi nga xam ne su suñ jógee fii ñu ngi dem boori Katong. ñu ngi dem Tanjee Tujereng Bato Kunku. suñ paree foofu tamit Brufut suñ paree foofu tamit dinañ dem Farafenni dinañ dem URR CRR. daanaka bi Gambia Gambia bi yëpp tamit fas yéene nañ koo cover ok we are devising other ways tamit yoo xam ne nii mun nañoo def tamit mm-hmm. ba nga xam ne képp koo xam ne nii mun nañoo jokkoo ak yow mm-hmm. because tamit Gambia fu mu nekk we are living in trying times mm-hmm. am xam ne nii mu ngi daan dem di jaayi si biir schools yi waaye su demee ba fu mu nekk nii school tëj mhm. te moom lu mu daan jaayee noonu loolu la daan dimbalee njabootam mhm. yenn saay sax ñoo ngi si am koo xam ne nii widow la moo nekk jëkkëram gaañu na bàyyil ko fi ay ñeneenti doom understand ba pare tamit the most important message I am sending it to mhm. the people ñi nga xam ne nii ñu ne nana yónnee xaalis wala yéen yéen a amee distribution bii nii oh. gis nga mbiri parparloo ak yi xama ne su la dalutee fii sax it will leave behind you. su fekkee ne yaa ngi am ay family members. Mm-hmm. yoo xam ne nii ñu ngi nekk fii ngay dem wala nga am nekk politicien di supply maalo ak sukur based on political cloud wala kër bi mu ëpp karta mm-hmm. wala kër bi ni fii laa mun a amee favoritism mm-hmm. things will not work like that wala am nga nañ di dem di seet man am na ñoo xam ne nii maa ngi leen distributoon si koñ bi ñoo xam ne musuma am ak gaay wax musu ñoo wax ma wax boo xoolee seen situation xam naa ne ñii ñoo ma tane. man man at least ma leen tane wala ma max. ne ko xam moo taxit bu mu tamit di ma jox seen xaalis am naa people ñu ni ñoom Fils Diouf. Mhm. ñoom Sibi ak ñoom ñëpp. Mhm. su xaalis ñëwee wala dara dama de dem ne leen ne ah ok lii ñëw na. Mhm. musuma jël suma liste autonomie ma doxaa moom. damaa ñëw teg dara. ne leen ne nañ def kii ak kii ñu ñëw daaji ko bam mu set wecc indi ñoom tamit seen own nit. xam nga moo tax gis nga séedaala bi sax mhm. xam nga it has been a democratic setup rafet na understand nga so yooyu noonu maa ngi koo ñaax ñeneen ñoo xam ne nii ñoom it toll nañ si yooyu ne please am na ñoo xam ne nii dañ ko dee soxla de mhm. man yow aada mhm. soxla nañ ko de waaye daf dee am ñu ñu ko dee gën a soxla ah, ah, dañ dee starté foofu parce que soo ma waxee ne dama daan liggéey maa ngi toog kër amatuma how about koo daan jox koo xam ne dina am liggéey moom at least yow jotoon ngaa denc tuuti. dëgg kooku mu ngay dee. soo nañ di gëstu wante bu baax. Euh, loolu am na solo mbokk yi li muy wax nii rek daf may fàttali xare Badar comme que moom ndongo daara la. Mm-hmm. ne jaar na ci daara ji xam nga Badar toll woon nañ foo xam ne. Mm-hmm. Euh, dafa am juróom-ñaar yoo xam ne jamoon nañ leen kenn ku ci nekk soxla ndox. Mm-hmm. Euh, ki am ndox tuuti ndox la am waaye ba mu déggee diw ne ndox ndox ndox mu ne jox leen ko ko ñu jël ko jox ko ko kooku itam keneen nekk ci borom ne ndox keneen nekk ci borom ne ndox balaa ndox bi di agsi waat ci borom ndox ma kooka dee na bala ñoo delluwaat ci kako laajoon kooka dee na kon ci jamono xare badar lañ toll mbokk yi nañ leen bàyyi xel bu baax a baax te jàpp ci li nga xam ne loolu la wax fii la ñuy tàggatoog yéen nag wala ngeen xaal ma ci kanam tuuti rek bu leen dem sax de xaar leen ma ci kanam tuuti rek maa ngi dellu si waat insha allahu taala Sahel Entertainment Network la